am na solo te ku nekk mën na cee jël lii wàllam ci li ciy sotteekoo ci yiw waaye ci xalaat yu rafet maa ngi sof sama kàddu ci fi nga daanelee muy ci ndigalu président de la république son excellence Macky Sall jox ñu ay directives jox ñu ay ndigal yu wóor a wóor jaarale ko ci coordination premier ministre am Amadou Ba jox ko service su état yëpp waaye ku ne gis na àllarba bi weesu conseil des ministre ndigal li mu yeesalaat jëmale ko ci ñu taxawee bépp gàmm bu am ci senegal waaye tamit taxawee bu baax a baax a baax gàmmu Medina Baye wax nga ko léegi ci sa kàddu imam nit day bàyyee fu nekk ngir tànn ñëw kawlax Medina bàyyi ngir teewee fa màggal guddi yonant bi sallallahu alayhi ndax barke ba fa nekk waaye njàngale yu rëy yamu fay ñëw fas yéene ko fa nàmpe te ku ne xam na ni euh, ci loolu la Baye Moussa nekk ku ne xam na ni muy meddina bàyyi waaye muy ci bitim réew fépp fu mu Moussa dem jàngale diine la fa yóbbu waaye jàngale jikko yu kawe muy jikko Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam lafa yóbbu te xam nañ tamit ci taarix ni naw gi ko ñi ëpp xam-xam ak ñi gën a sell ci àdduna nawe woon du lenn lu dul njullite gi nekk ci moom waaye jikko yu kawe yu lislaame yu nekk ci moom ndax euh, néew na nga dem ci réewu arab ñu naw la ci xam-xam wala ñu naw la te loolu yàlla wërsëke wërsëkale woon na ko cheikh al islam euh, euh, suñu maam Ibrahim ñas xam nañu ku nekk diggante cek nangu yenn yi ci njiite waaye nangul nañ ko ku xam na ni tamit digganteem ak Arabie Saoudite fa na woon ku ne xam na ko liggéey bi mu def Nigéria ku ne xam na ko na ko kon góor yàlla bu yor drapeau Sénégal waaye góor ngeen liggéey bi te maa ngi ko doon wax léegi bi ñu nekkee ci biir ci waxtaan wi mani këru diine yi dañ leen yoreel ngërmande dañ leen yoreel sant amaana ni àdduna di doxee léegi ku nekk di joxe sa xalaat wala ñenn ñi sax xañ na bëgg imposer seen xalaat ñeneen ñi dañuy dem ba fàtte cosaan ak njariñ liy bàyyeekoo ci li nekk ci këru diine yi mais bu ñu xoolee ànd ak xel mu teey ak xel mu dal xool liy soqeekoo ci li ngeen di liggéey ci askan bi ak liy soqeekoo ci li ngeen di liggéey ci tënk nit ñi ci jikko yu rafet ak ci njullite liñ leen amal mooy sant leen gërëm leen waaye am na ñoo xam ne nag xañ na peut-être loolu du leen arrangé parce que dañuy bëgg mbir yi lëx wala mbir yi jaxasoo ba ku nekk ba kenn dootul xamati fan la dëgg féete wala kenn dootul xamati fan nga war a teg sa tànk mais ndono mag yi ak liggéeyu mag yi ala kulihal gis nañ ni Sénégal moom duñ ko bàyyi ba mukk te fi ñu tegoon seen tànk ubbi yoon yi nga xamante ni moom la ñuy tënkee nit ñi ci yoonu siratal mustaqim muy ci jaamu yàlla mais surtout ci yar leen parce que tout le temps dama koy fàttali si wax xam-xam nit mun na ko jànge fu nekk léegi bi ñuy ànd dem di julli ji timis moom dafa wax wax boo xamante ni ma ni ko ah tey de xam naa euh, am na lu ñu jàngat ndax nit ku nekk soo xëyee di nga am loo jàng lu bees mu wax fekk ñuy tooñ am na kenn kuy wax ak moom euh, waaw di ma tooñ di wax nii dafay waaw dafa mel ni damay xawa dama ciy for tuuti rek waaye dégguma ko sax <laughs> mooy tooñ di wax ni dafa mel damay kii tuuti ci arab ma ni ko non déggu dama ciy kii rek damay euh, dama ci foraatu tuuti imam am lu am solo lu mu wax tontu ko ku nekk mën cee jàng dara mu ni boroom xel de lu mu xamul da koo neex te loolu li ma ci jàngee te li tax ma koy nettali mooy bëgg ñëpp jariñoo ci ni ma ci jariñoo léegi nii ci bi ñuy dem di julli ji doon laa yéene ñëpp jariñu ci boroom xel lu mu xamul da koo neex loolu mooy lu nekk loo gis muy lu baax boo ca góorgóorloo yàlla mën na la caa dimbali yow lii sa devoir mooy def effort mais lii indi nga xam ci dara wala nga maîtriser ko kooku mbiru yàlla la bàyyi kooku moom mais effort bi ci yow la dépendre pour man lii baaxul mooy nit bu dul def effort mais nit ku nekk boo jugee gis lu baax wala gis loo xam ni war nga koo xam wala yàlla na ci yow ab jullit nga xam ko jéemal def effort bi rek li ci des nga bàyyi ko ak yàlla loolu nag dafay firndeel rek li ma doon wax ci njëlbeen gi mooy fi ngi mag ñu baax ñi tegoon seen tànk ci jéem a góor jéem euh, tënk njaboot gi ci jub ak ci jikko yu rafet ak ci góor góorlu bay gën a kaweel seen jikko ci loolu ngeen nekk moo tax saa su nekk ngeen di fàttali loolu loolu nag buñ ko amee fii senegal du lu ndaw bu bu ñu du ñu nangu tamit kenn di ko gannaawal man pour man devoir la devoir la obligation la ci jullit bu nekk Sénégal nga góor góorgóorlu ci ndono mag yi nga fexe sa kéem kattan ba kenn di ko jéem a bañ a wala nga koy jéem a bañ a gannaawal parce que loolu mooy suñu salut loolu la ñu xam li ñu xam mooy tey fi ñu toog ci jataay bi gis na Baye Mamoun léegi donte yàlla may na ko xam-xam bi yàlla may na ko euh, fasaxa bi euh, ci wàllu kàllaama mais laata muy wax mi ngi mi ngi laaj ndigal doon kilifa terewul nga am kilifa ma ne ko doon kilifa terewul nga am kilifa te ko amul kilifa moom jarta jaxasool jarta en tout cas man bu ma gisee ko amul kilifa dina la moytu <laughs> kon wax ji euh, li doon sabab bi mooy euh, euh, tënk ci gàttal ci solo yi diine am ci solo yi yoonu mag yi am mais ci solo yi nga xamante ni mooy li ñuy def ci réew mi loolu nag moo waraloon président wax ni nañu ànd ak yéen waajal bis bi ku ne xam na ni nawet lañu nekk te ku wax nawet wax ndox ndox di xéewal yàlla wàcce ko ci kaw suuf di mu doon sababu meññ ñoral meññeef waaye tamit saxal gàncax te baykat yi soxla nañ ko lool di ñaan yàlla mu defal ñu nawet bu barkeel waaye gàmmu ci nawet dafay indi euh, xañ na wàllu inondation wàllu jafe-jafe ci dem beeg dikk bi ci yoon yi loolu nag service su état bi war ci am taxawaay taxawaay boobuñ ci war a am moo waral muy service su état yi ONAS muy DPGI muy brigade nationale des sapeurs pompiers ku ci nekk jotoon ndigal ngir ànd ak yéen liggéey fexe ba yéwénal oyofal lii nga xamante ni moom mooy li ñu war a fekki fekkee ci fan yu néew bu soobee suñu borom muy gàmmu gi gis nañ difficulté yi ñu soulever fii te réunion bi loolu moo doon objectif bi objectif bi mooy li ñu jot a def ci lu baax Serigne Cheikh Ahmed Tidiane fàttali ko léegi ak li ci des fileeg ñu yegg ci gàmmu gi ñu xool nan la ñuy indee saafara loolu moo waral ci domaine u assainissement bi gën a am solo ci période bi ñu nekk ci évacuation eau ñu insister ci alimentation en eau potable muy ndox mi ñuy nan tamit am na njariñ am njariñ boo xamante ni il fallait que ñu xool ginnaaw effort yi état bi def ak SONES ak seen Sen'Eau ak ofoor pour fexe ba ndox mi doy ñu am beneen cadeau bu ci dolliku bàyyee ko ci président de la république son excellence Macky Sall mu joxe ndigal ni nañu jël ay citernes trente mille litres indi ko ci Medina Baye ci wàllu Sénélec aussi gis nañ jéego yu rëy yi ci état bi def ci wàllu éclairage public ak ci wàllu extension réseau waaye tamit fexe ba wooye falal ñiy tertu gan yi ci wàllu seen ay consomation ci wàllu commerce noonu ci wàllu santé wax nañ léegi visite bi fa ministre de la santé def ak jéego yu rëy yi ñu def ci hôpital bi ambulance yi fa ñëw ak équipement yi am engagement ni war nañ ko fa indi ci centre bu bees bi kon su ma xoolee domaine yi intéressé gàmmu gi yëpp ba ci ñiy war a jóge bitim réew oyofal ak yombal yi ñu leen war a defal ci wàllu immigration waaye tamit ci wàllu tali bi diggante seen diggante ak douane su dee ci wàllu waañ bi si matt yi ñu war a jëlee ci yenn gox yi ak autorisation yi ci war a bàyyeekoo yooyu yëpp buñ ko xoolee jëlal nañu lu ëpp ñetti waxtu waaye jaroon na ko te ëppoon naa bañ a def ndaxte liñ ci jublu du lenn lu dul ñiy ñëw ci gàmmu gi mu nekk gàmmu goo xamante ni du am coono wala coono bi bokk du bari ña fa dëkkit mën a euh, yaatal gan yi ba liñ ci sentu yëpp ci mën a am euh, mën ko teewee ci daluk bakken mën ci jaamu yàlla ni nga xamante ni noonu la ko cheikh al islam cheikh ibrahim daan defee ñi fa dëkk di berndeel gan yi niñ ko baaxoo di defee ñu mën koo def ba yàlla dimbali ñu ba ca gàmmuwaat ba buñ ko weesoo tamit ñu gis ni liñ ci xalaatoon ak di ko euh, séntu yëpp ci organisation yàlla dimbali nañ ba li ci ëpp bu lépp matulit li ci ëpp ñu matale ko ndaxte def mu jub wala wax mu jub loolu yàlla rek moo ko yeyoo waaye jàmm bi li mu am mooy góorgóorlu def kem kàttanam ba noppi rafet ci njort ndax ki ñu sàkk binduñu boole ñu moom moo ñu ko digal te sañuñu ko bañ mooy rafet njort ci lépp lu ñuy dugg loolu mooy li nga xam ne bëggoon naa ko séddoo ak yéen ginnaaw bi ñu defee réunion bi di wax gouverneur moom mooy ki jiite administration bi ci wàllu région bi lépp luy coordination ci moom lay aju li ma koy jox comme instruction ci kàddu ak ci ndigalu son excellence monsieur le président de la république Macky Sall mooy mu topp suivi bi ba ñu yegg ci bis bi na ko daan defee te mu mate ko lool tamit euh, ba bu soobee yàlla bu ñu dajewaatee ñu gis ni la ñu sumboon ci at yi weesu jàll nañ ko ndax dama kontaan sànq bi ñu toogee ci biir ñu gis ni li ñu fi waxoon daaw ci wàllu tali Ageroute waroon ko defar amoon ay problème mu évacuation do ren kenn waxu ko fi kon li ñu fi wax ren it liñ ci war a lijjanti fiyeek ñu yegg ci gàmmu nañ ko lijjanti waaye bu daje bu mel ni amaatee déwén problème yi ñu évoqué woon nañ ko dépassé te loolu mooy lii rôlu état mooy problème bu posé wu nañu fexe ba amal ko solution ba bu ñu waatee beneen problème la ñuy wax problème nag du ñàkk ci àdduna te problème boo réglé rek dina am beneen bu bees bu ñëw taxaw ci sa kanam mais li ñuy jànkonteel nay doon problème yoo xam ne duy ñëwaat tout nañ koy dépassé di am yeneen défi yeneen challenge ak yeneen problème pour le bonheur des population xam naa loolu mooy li ma bëggoon a wax sëriñ bi di sant bu baax ci kàllaama di sant bu baax ci li nga wax di joxe suñu ziar ci turu président de la république euh, xalifa bi Serigne Cheikh euh, Mahi ñës di ko sant bu baax ci ni muy xalaatee mais aussi ni mu dañu xam patriotisme am dañu xam bëggam réew mi wax naa ko assemblée nationale bi ñuy modifier code électoral bi waxaat ko léegi bi ñu nekkee ci biir. Euh, doon na waxtaan laata ñuy yëg ci réunion bi dama wax ni Serigne Cheikh Mahi réew mi yëpp amal nañ ko jukkal réew mi yëpp amal nañ ko euh, jërëjëf ndax dafa toll benn période bu mu jël position te jublu ci woon lenn lu dul dimbali ñi koy déglu waaye dimbali waa réew mi yëpp ba muy joxe point de vue am ci ay question d'actualité dafa ni su ma xam naa suñu waxee sax suñu su ma waxee ba noppi sax xam naa dinañ ma wax safaan dinañ ma wax naka sadul noonu waaye sama réew jaral na ma ko donc voilà un guide voilà un chef voilà un père spirituel boo xam ni bi mu waree taxaw wax wax na ko te jublu ci lenn lu dul tout temps donnant d'ailleurs moom jëmmi boppam mu nangoo sacrifié wu uniquement pour luy jariñ réew mi réew mi nag dafa bindoo noo xamante ni ñi xam la plupart du temps du ñuy wax te demoon nañ ba yegg ci jamono boo xamante ni ñi xam danañuy hésiter di wax te dara waralu ko woon ndax boo waxee ñu wax la lu ñaw boo waxee ñu euh, dëkkal la foo dëkkul boo waxee ñu nekk ci sa der pendant une semaine wala pendant un mois wala pendant deux mois yaakaar ni singli boobu ñu lay singli ak song boobu ñu lay song wax la lu ñaw wax la ay wax yu tegginul dëkkal la foo dëkkul tax ba ñenn ñi xam ragala wax wala ñu ni sax bu ñu ragalul wax it am nañu njaboot te bëgguñu seen njaboot daje ak njabootu keneen moo tax ñu ni nañu di nañu jël choix wu bañ a wax mais bi ñu tollee ci mu war a jël position ñu koy sant di ko gërëm Serigne Cheikh Maye Niass dafa wax ni xam naa sax dinañ ma wax naka sa noonu waaye man dinaa ko wax man nag li may invité boroom xam-xam yu mel ni yéen ak nit yi yarkat yu mel ni yéen ak nitu daara yu mel ni yéen nature dafa am horreur du vide fi mu ne bu fekkente ni ñi war a wax waxuñu ñi warul wax ñooy amee réseaux sociaux yi amee tele yi amee rajo yi te nit ni ko yàlla bindee day toppandoo su fekkente ni dafay dégg saa su nekk bu tijjee téléphone am kuy saaga am ñu koy tàccu day yaakaar ni saaga moo gën ci àdduna bu fekkente ni saa yu tijjee téléphone dégg ko koy wax ni ko na nga yiw nanga wax lu rafet na nga wax lu baax nanga fexe ba respecté ku la mag ku la ku la féete ndaw na nga ko yërëm kooku bu koy dégg saa su nekk su gisee mag da koy jox cër bu gisee ndaw da koy yërëm te dafay respecté boppam jox boppam cër léegi bu fekkente ni ñi war a waxuñu ñi warula wax amee tele yi amee rajo yi amee réseau sociaux yi fexe dugal ci bopp nit ñi ak xolu nit yi lu ñaaw ñëpp dañuy dem ci direction boobu or li ngeen am ci seen macha allah bopp ak seen dënn ci xam-xam ak ci expérience il faut que ñu koy partager ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo gën a nekk jeune ak ñun ñi ñëpp ñu koy partager ak ñun pour que ñu mën ko jariñoo parce que suñu réew loolu la soxla li mu soxla mooy ñu sukkandiku ci ay valeur yu wóor a wóor a wóor dafa am lu ma mës a dégg xam naa ni foofu lay daanelee euh, ci pays yu bàyyi dégg naa nit du fa saaga amul saaga ma am sama benn xarit bu mës a nettali ni pour wax yar nan laa amee solo ak li ngay dégtal sa njaboot nu mu amee solo ak li ngay wax ci sa kanamu njaboot ni mu amee solo ak li ngay wax ay nit di la déglu ni mu amee solo am kenn ku ñëw di waxtaan ak bàyyi xam naa yéen may gën a miin xisa bi di ko wax ni ko man de dama xamul lan mooy waral nit ñi di saaga wala di wax lu ñaaw ak yooyu bàyyi woo benn xale ci kër gi ni ko saagaal bi mu ko nee saagaal comme kooku musul dégg saaga xamul luy saaga mu naan saaga saaga saaga donc xamul luy saaga pour wax ni dafa am solo ñi war a wax ak ñi xam di wax bañ a bàyyi nit ñi nga xamante ni li ñuy wax xamuñu ci dara bëgg réeral dañu réer d'abord bëgg réeral ñeneen nit ñi kon kër diine yépp man lu ma leen di invité kër diine yépp lu ma leen di ñan kër diine yépp lu ñu leen di euh, yalwaan mooy saa yu ñu waree wax nañu wax ndax lii rôlu état bi muy taxaw ci ku nekk lii sa àq ak sa yelleef nga jot ko incha allahu rabbi dinañ ko def loolu moo doon wax ji asalaamualeykum wa rahmatullah taala wa barakatu je vais faire euh, un petit résumé en français euh, sur instruction de son excellence monsieur le président de la république Macky Sall euh, nous avons tenu cette nationale préparatoire au Gamou de Medina Baye de cette édition 2023, qui a réuni l'ensemble des services de l'État concernés, mais également le comité d'organisation en charge de cet événement de dimension internationale dont on sait qu'il de plusieurs pays amis et frères. Mais ainsi est la dimension internationale de Cheikh al-Islam, Cheikh Ibrahim, qui a de tout le temps fait des déplacements à l'étranger avec son bâton de pèlerin pour davantage éduquer, mais également enseigner les valeurs de celui qui est son maître, le prophète Seydina Mohamed salam, dont nous célébrons très prochainement la commémoration de la naissance. L'occasion nous a été donnée à travers cette réunion de passer en revue tous les domaines intéressant l'organisation du GAMO. Nous savons que nous sommes en période d'hivernage, où le principal point d'attention concerne l'évacuation des eaux pluviales. L'ONAS ainsi que les autres services impliqués de l'État que sont la DPGI, aussi la Brigade nationale des sapeurs sont à biais d'œuvre depuis l'organisation du CDD en passant par le CRD, et cela va se poursuivre jusqu'à la date du 27 prochain sous la coordination du gouverneur. au de l'assainissement, il y a eu aussi la question cruciale de l'alimentation en eau potable et l'implication, mais les efforts particuliers de l'État à travers la SONES et les différents branchements sociaux, ajouter aux instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de mettre à disposition des citernes nouvellement acquises de, 30, de capacité de 30 000 litres chacune, il est certain que les difficultés connues par le passé seront bientôt de vieux souvenirs. Les autres domaines aussi, on pourrait les citer, ont été passés en revue et à chaque fois, qu'une difficulté a été à travers les échanges et les solutions proposées, une décision a été prise pour qu'ensemble, nous une parfaite organisation du Gamou de cette édition de 2023. Nous ne pourrions terminer sans transmettre les salutations, mais aussi les vœux de longévité ainsi que de meilleure santé adressés par son Excellence Monsieur le Président de la euh, à, au khalife général de Medina Baye, Cheikh Maï Nias, pour lequel nous n'avons que respect, admiration, mais qui constitue un exemple à plus d'un titre pour les prises de position qui sont les siennes, mais surtout les analyses très pointues à chaque fois que se pose un problème d'une actualité intéressant la vie de notre nation. je vous remercie de votre patience parce que c'est une réunion qui aura tiré en longueur pendant plus de trois heures de temps. Mais comme on le dit en Wolof, c'est à la dimension de celui dont nous célébrons prochainement la naissance, c'est-à-dire le saut des prophètes, s'il n'en est pas des Am naa comme sëriñ bi ñu def ñaan